lu toll ci benn million tonu ceeb boo xam ne jéggaani nañ ko bitim réew waaye nag loolee dafay firndeel ne maanaam Sénégal am nañu jafe-jafe ci lu jëm ci nit ñuy dundee loole nag moo tax njëg yi yokk ba maara détaillé ba askan wi jamono ji am na ñenn ñoo xam ne mënatuñ koo supporter yéene kaay gi du l'Observateur ak Vox Populi ak L'As ak Enquête ak Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu njiitul Pastef di Ousmane Sonko démb la commencé nemmeeku tuura ci département bu Mbour commune bu Joal-Fadiouth L'As yéene kaay nee na Ousmane Sonko ñi mu leen dóor ba maara détaillé Sonko nag nee na Macky Sall dafay laaxatoo ci ginnaaw police ak ci ginnaaw gendarmerie di def ay ñawteef waaye nag na ko leer na ñu raguluñu ko te nag pare nañu ngir loo ak mooma ah. yéene kaay gi Ousmane Sonko daan nay wax lu leer ñi nga xam ne nag ñooy takk der yi niki démb ca diwaanu Mbuura ah. gendarme yi Ousmane Sonko nee na leen ah, maanaam bu leen neexee ngeen teg ma loxo bu leen neexee ngeen dóor ma waaye nag sama tournée bi moom dinaa ko yeggale Macky Sall mënu ci dara amul kenn koo xam ne mën na ci dara yéene kaay gi ñu fa dee ci fàlla muy tubayul Ousmane Sonko nee na Sall ci boppam moo war a xam ne maanaam ñu nekkuñu ci royaume Ousmane Sonko nee na Abdoulaye Wade dafa bàyyi woon Macky Sall 2011 maanaam mu wër Sénégal gi yëpp noonee nga xam ne moom la Macky Sall amoon sañ-sañ def ko noonee la ñu amee ñun dim sañ-sañ daal di koy def wër askanu Sénégal waxtaan ak ñoom te Macky Sall bërki déemoo Njaay la fi li nga xam ne mooy ab doxantu wa Ousmane Sonko nee na nag Macky Sall jamono ji dafa war a xam ne man ragalu ma ko te askan wi pare nañu ne Macky Sall jeexal na lu mu ko jaral nag man Ousmane dina ma ko jaral ndax ñoom jamono ji dañoo tiit ba maara détaillé ci ginnaaw police ak gendarmerie maanaam ci la ñuy làqoto police ak gendarmerie la ñu yaakaar ba ci journal bi daat nay wax ne moom fu mu génn nit ñi topp ko bu demee sax ab dëj dañu koy topp loolee munu ci lenn munu ci dara te nag am na sañ-sañ def nemmeeku tuura ba tey ci journal bi moom Sonko nee na ñi nga xam ne ñuy waa Benno Bokk Yaakaar bis bu yàlla sàkk ñoom ñoo ngi def seen i convoi te dara fekku leen si yéene kaay gi de la sa xëy duñu xibaar naan ñu waa APR jamono ji ñoom tima maanaam yëngu nañu daan nañu relancer seen i activité politique njaayum carte waa APR loolu la ñu doora nee nañu lu toll ci benn million bu fegg juróomi téeméeri junni ci membre la ñu soxla yéene kaay gi di bés bi nee na Macky Macky fan la jëma yéene kaay gi di Rewmi a ñu xëy fekk fa Mary Teuw Niane moom nag nee xel xalaatul ay élection présidentielle di am ci réewum Sénégal te Ousmane Sonko bokk ci Sonko mi nga xam ne mooy principal opposant Macky Sall moom Mary Teuw Niane nee amul kenn koo xam ne am nga intérêt ay élection am ci réew te Ousmane Sonko bokk ci Mamour Cissé bu PSD jant bi nee na candidature président Macky Sall waa conseil a def ab déclaration publique wax na dëgmal te nag Macky Sall waru cee bokk loolee kàddu yu Mary Teuw la yéene kaay gi di Sud Quotidien nee na kuréel gi nga xam ne moo ëmb maire yi nekk ci opposition bi Ousmane Sonko moo ko jiite waaye nag ñoom nee nañu teguñu kuréel googe nag ngir na créer ab adversité seen diggante ak état central yéene kaay gi di Le Quotidien nee na Macky Sall ma ngi waajal Aminata Touré ru rëy ndax nee nañu Macky Sall képp koo xam ne jege ñaalib Aminata Touré nga Macky Sall daf laa bëgg na deal moo am Quotidien Abbas Fall daat nay wax ci assemblée nationale ak ci blocage bi nga xam ne ñeen ñi ñoo ngi koy wax moom nee na loo xam ne intérêt askanu Sénégal la ñoom ñu ko jéem a bloqué ndax loolu yóbbu leen assemblée nationale yéen kaay gi du Source A Abdoulaye Diouf Sarr nee na Macky dafa jël ñoo xam ne ñoo ko doon saboté ci élection locale yi dugal leen ci gouvernement bi te nag ñi nga xam ne ñoo dàq saaga ñooñu la ñu jox ay poste stratégique kàddu yu Abdoulaye Diouf la ngi ci Source A yéen kaay gi délibération xëy ñu xibaar naan am na benn convention bu dox diggante ministère du développement communautaire ak